Assemblée nationale ngir dàkk soit des députés soit des citoyens sànq euh, le euh, président Amadou Mame Diop defaat na ko comme ni mu ko defee woon bi muy xew bi ñuy installé euh, parlement bi est-ce que jamono ji nekkuñ di décrédibiliser de plus en plus notre parlement Ibrahima. ah donc Ayoba je je pense que quand même revenir sur les comment dirais sur les principes Parce que l'Assemblée nationale, bon, c'est vrai que c'est le lieu de la, de, du débat public, de la, euh, la contradiction, mhm. de la confrontation des idées, mais aussi de la aussi benn sérénité. Mm. benn sérénité, boo xam ne aussi euh, euh, sérénité bi ak calme bi ak lépp lépp li koy indi ba ba nga xam ne député yi dinañ mën a voter en leur âme et conscience loolu maanaam président assemblée bi moom la. yoon te moom la police bi moom la yoon toog ci teg ci loxo président kii di président de l'Assemblée nationale donc euh, dafa mel ne genre pouvoir discrétionnaire man je ne suis pas pour l'utilisation ou ou l'abus vraiment de de de de l'autorité à chaque fois parce que amoon am na ay temps yoo xam ne kam quand même ci je crois ci présidence su Macky wala même ci présidence assemblée boo xam ne boobu ci ci Moustapha Niasse la woon donc ma daan gis ay kii yoo xam ne rafetlu ma ko woon. Mhm. j'étais pas du tout d'accord. mais aussi bu fekkee ne aussi bu amee ay ay ay benn public boo xam ne xaw ma fu ñu far xaw ma benn bokk yaakaar la ñu far xaw ma wala wala wala Yewwi Askan Wi lañ far mais résultat bi daal laa gis que ne le président de l'Assemblée nationale a usé de ses prérogatives euh, yi ko xam yi nga xam ne règlement intérieur de l'Assemblée moo ko may pour mu génnee ñooñu pour que les débats mën a poursuivre en en sérénité je pense que loolu aussi lu ñu luñ ko luñ ko mën a nangul la euh, leneen lii mooy euh, les députés aussi bon. bon c'est vrai que dans tous les parlements euh, souvent yooyu day am mais les députés aussi doivent avoir suffisamment de maturité. Mhm. donc nga ba nga xam ne euh, parce que lu lu sérieux lu tol ne loi constitutionnelle parce que loi constitutionnelle c'est pas pour rien que on dit que il faut que mu am une majorité qualifiée euh, bokkul ak loi ordinaire. Mhm. majorité qualifiée au Sénégal fii sur 165 donc c'est 99 députés donc c'est parce que c'est pas une loi ordinaire donc lu mel lu mel noonu lu toll noonu enjeu ak enjeu yi ci laxasu yëpp. bu ñu koy kii vraiment dama yaakaar ne dafa war ànd ak beneen discipline boo xam ne mën nañ ko on peut on peut la demander aussi bien des députés que du public parce que l'Assemblée n'est pas obligée aussi de de de de de de de de de voter les lois en public loolu su fekk su mënee am xayrun su fekkee mënul am aussi bon je man je reconnais au président aussi la prérogative ak pouvoir discrétionnaire bi nga xam ne moom la ko yoon may su fekkee ne. il sent que ne lii euh, lii nga xam ne mi ngi mi ngi xew donc mën nañ ci euh, débattre en sérénité pour une loi aussi importante donc euh, je je je je lui laisse l'entière prérogative d'user de ses pouvoirs de police. Ayoba Amadou Mame Diop moom moo am police bu assemblée nationale ni ko Ibrahima Anne waxee léegi mais tey on a vu beneen Amadou Mame Diop. boo xamante ni euh, sortir de ses gonds lu ñu mosul gis par rapport ak euh, député yi nga xamante ni mi ngi leen doon rabroué ku si mel ne euh, Cheikh Thioro bu bu bu Pastef jamono ji est-ce que Amadou Mame Boye Diop jéemul sax moom si jëm boppam di joxe un message au pouvoir. waaw mun nañ ko mun nañ mun nañ am lecture boobu que nii dafay peut-être joxe lancer un message au à l'exécutif en tout mhm. cas comme moom mooy président deuxième chambre bi nga xamante Euh, deuxième institution wu dëkk bi euh, mi assemblée nationale nga xamante ni peut-être gëdd bi nga xamante ni président de la république euh, moom la am moom moom mu di Amadou Mame Diop peut-être institution bi mu jiite tamit moom la am parce que exécutif dafa am dafa am exécutif am législatif ñoom ñaar ñëpp dañ leen di dañ leen di élire au suffrage au suffrage universel donc Euh, noonu la fa noonu la fa demee mais tey jii tu as tu bien raison tey dañu gis beneen visage wu Amadou Mame Diop euh, wuute na ak bi ñu doon gis nga xamante ni dafay toog quand même di euh, bàyyi débat yi ñuy dégénérer. Mhm. mu toog mel ni ko xamante ni nekkul bi assemblée tey moom dafa jël ses responsabilités dem naa sax ba am na benn moment mu chargé carrément ñaari député yi nga xamante mhm. ni dañoo jóge woon seen place ñëw ci pupitre bi di kii foofu muy Cheikh Thioro dem na ci ba ni bu leen ma bu

def en sorte que les débats se tiennent euh, en toute sérénité euh, ba yëf yi bañ a ci biir en tout cas enceinte assemblée nationale bi donc comme loi moo ko jox prérogative yooyu euh, dañu jàpp ni saa yu jugé que ni moom assemblée bi yëf yi mi ngi déborder soit mu suspendre séance bi soit mu woo ñi nga xamante ni ñooy force de défense et de sécurité yi pour ñu ñëw assurer li nga xamante ni mooy sécurité député yi nga xamante ni ñoo war a def plénière bi c'est vrai luy nga xamante ni taamu ñu ko woon gis assemblée nationale ñu gis ko. Mhm. keroog dañoo euh, woo gendarmerie mu ñëw biir assemblée nationale. pour mhm. permetre à ce que euh, la majorité puisse installer le président choisi par euh, par Benno Bokk Yaakaar mooy Amadou Mame Diop ndax keroog cool yi bari woon na keroog muy le septembre je pense 2000 2022 coow li bëri woon na trop ba assemblée bi ki nu mu tuddati gendarmerie ñoo mujjee ñëw installer le président la le président de l'assemblée nationale proposition wala proposition de loi boobu nga xamante waa PDS dañ ko dugaloon pour ñu dàq li nga xamante mooy élection bi on a vu que bi yëf yi débordé moom tamit dafa woo ñi nga xamante ñooy gendarmerie ñu dugg biir assemblée nationale te doon ay image yoo xamante dafa rafet ci euh, day taaru ci biir démocratie euh, donc yëf yi mun na déborder doyen aad mi ngi koy wax léegi c'est un lieu de contradiction mm-hmm. da ngay gis yeneen dëkk yi ni sax biir ñoom ñëpp ñu àndaat euh, parce pour man yëf yi noonu la war a demee yëf yi euh, yaram yi mën naa tàng trop mais tant que bi jógewul à l'extérieur maanaam amul public boo xamante ni mooy euh, bu bokkul ci en tout cas député yi nga xamante askan bi ñoom la fal dugg ci biir assemblée bi bëgg a yàq bi mhm. je pense que euh, la dernière fois que bi ñu koy def euh, on a remarqué que yenn yenn députés askan bi quand les forces de défense et de sécurité les avaient brutalisés violentés bi leen di évacuer ci biti pour ñu génn pour bi pour ñu mën a voter loolu nga xamante mooy proposition proposition de loi bi doon dàq élection présidentielle bu 25 février 2000 2024 donc euh, moi je suis vraiment il doit la police euh, de l'Assemblée euh, nationale bu pla bu plénière amee mais pour man tant que menace bi jógewul à l'extérieur tant que mhm. bi nga xamante ne mooy nekk foofu duggul ci biir assemblée bi bëgg a yàq plénière bi pour man euh, force de défense et de sécurité yi mën nañoo ñàkk ci te bàyyi député yi ñu lijjanti seen i problème même fekkee dañuy dóorante foofu ay kuréel fañ sax nañ lijjanti seen i problème ba yëf yi bañ a yëf yi bañ a justement euh, Ibrahima est-ce que lii war nañu nangu muy nekk habitude au Sénégal euh, di gis des des des corps habillés biir assemblée nationale comme niñ koy gisee si ñaari yoon yi non loolu loolu loolu moom Assane loolu moom c'est évident que loolu benn amul kenn koo xam ne war na ko mën a war na ko a rafetlu euh, ça doit être des cas exceptionnels. Mm-hmm. te euh, bu ñu demee nag ba exception bi di nar a di nar a jur la règle nag loo booba problème lay doon. en tout état de cause man je pense que il faut que ñu revoir un peu notre rapport avec nous-mêmes notre rapport avec les autres et notre rapport avec les institutions. Mm-hmm. parce que euh, dañuy wax séparation de pouvoir mais dafa mel ne dañ koy wax ni mais gëmuñu ko. parce que les force les forces de de de défense et de sécurité ne font quand même pas partir ne font quand même pas partie du législatif. Mm législatif c'est les députés. donc euh, fi nga xam ne député yi foofu la ñuy toog di voter loi yi di contrôler l'action gouvernementale wala di def yeneen yi nga xam ne constitution bi moo leen ko may bu ay euh, ay ñoo dañoo dañoo dañoo tàkk der donc di war a war a réguler war a jouer war a war a war war a réguler euh, li nga xam ne moom mooy fonctionnement assemblée donc loolu dafa lu ñu lu ñu lu ñu lu ñaawlu la. Euh, nekkul lu ñuy rafet rafetlu benn image la boo xam ne dafay gàkkal euh, dafay euh, dafay gàkkal démocratie mais leneen li nga xam ne bon peut-être aussi sànq wax nga ko ci sa question mooy que dafa mel ne on un autre Amadou Mame Diop mhm. bon peut-être que c'est les circonstances qui qui qui qui <laughs> bon euh, comme on dit c'est la c'est dañ ko c'est l'environnement qui fait l'homme parce que li ñu gisoon ci moom depuis le départ c'est quelqu'un qui était très serein mhm. donc à la limite calme taciturne mais bu dem ba benn moment bon peut-être aussi c'est dû au rapport qu'il a actuellement ni entre l'Assemblée nationale ak li nga xam ne moom mooy gouvernement bi mhm. donc loolu aussi mën na mën na mën mën mën déterminer un peu aussi le comportement des des des uns et des autres mais je pense que ñoom ñëpp dañoo war a revenir à la raison aussi bien euh, la majorité présidentielle que la majorité parlementaire ñu xam ne bon ñoom ñëpp ay ay ndaw lañu rek donc ils sont là de passage mhm. avant ñoom y avait des gens y avait des députés y avait des des ministres des premiers ministres des présidents donc mais le Sénégal moom il va rester à la kulli mm-hmm. alin le Sénégal demeurera. Mm-hmm. donc loolu nit ñi bu ñu bu ñuy bu ñu bu ñuy loolu rek. amaana li ñuy def à chaque fois liñ ci wóot dina dina dina dina war a doon benn kii boo xam ne wooy wu rafet la ñuy la ñuy bàyyi parce que euh, à chaque fois les gens bu ñuy citer assemblée par exemple dañuy on va y a des noms qu'on va qu'on qu'on va en que ñii par exemple ils ont marqué la législature. Mm-hmm. par exemple tey bu ñuy wax ay genre ay Abdourahim Euh, quelqu'un comme Abdourahim Agne je sais pas si vous si vous en rappelez c'est quelqu'un qui a marqué l'Assemblée hmm. par son passage parce que il était très bon il était très urbain hmm. mënoon na wax li muy wax yëpp te fekk saagawul fekk xastewul fekk bon euh, euh, ces trucs épiques entre euh, mook euh, Ousmane Ngom c'est des choses yoo xam ne vraiment ñun notre génération on en est nostalgique euh, beneen bi mooy Abdoulaye Wade aussi amoon na ay temps quand il avait